réew mi ak jàmm ci xibaar vendredi 22 décembre mu mel ne Barthélemy Dias procès bi nga xamante ne rek doxoon na ci digganteem ak Ndiaga Diouf doonoon ci atum 2011 ba 2023 bi ñu nekk. tey jii nag le 22 décembre ginnaaw ba nga xamante ne rek cour suprême daal dinay jàpp boobee la atte lan moo ca nar a tukkee ndax Barthélémy Dias dañ koo nar daan wala déet ak lu mën di xew moom mii di Barthélémy Dias ma ngay xam la ne moom rek moom mooy yóbbu affaire bi ca cour d'appel jëlee ko ca foofu yóbbu ko ca cour suprême kon rek kenn wóolu ko ma ngay xam la ne bu kenn ñëw këram waaye nag ñu bari ña ngay Dias ginnaaw boo xamante ne cour teg na ko ay daan mun na caa ñàkk li nga xamante ne rek moom mooy maire de Dakar waaye it ndombal députéem li nga xamante moom lañ ko tabal mu doon loo xamante fi moom lañ ñëpp di xaar fi mu doon nii ndax Barthélemy Dias yan daan moom moo nar a tukkee ci moom tey jii ci 22 décembre atum 2023 lan moo ci nar tukkee dinañ ñu leen ko taataanal ndax Barthélemy Dias dafay wéy di nekk